abonné wu leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne dal leen ak jàmm mbokku internet yi baaxoo di topp Buzz Media TV la chaîne des patriotes bu leen fàtte abonné dal di bës cloche de notification bi ngir bépp actualité bu ñu dugal yaay ki nga xam ne yaa koy njëkk a jotu bu leen fàtte di bës like bi tey dugg ci commentaire yi dafa ay kër ñaan ci réewum Sénégal sunu borom sotti fi jàmm gannaaw concert casserole bi ñu doon nemmeeku ne démb ci samedi gi daal dinay bari woon lool fépp ci réewum Sénégal daal ñu ko fa doon nemmeeku lu ne mel nag Guy Marius am bu ñu détourné benn yoon nañu wuy di xeex nguurug Sénégal gi nga xamante ci nii njaayum doole rek moo fi am ngir président Ousmane Sonko mën a bokk ci ñi xëccoo réewum Sénégal atum 2024 mi ngi leen di wax ne kat Ousmane Sonko moom génn waaye bu leen toog ba kilifa génne waaye nag nañu ko génne ci li nga xam ne moom lañ ko jàppee woon muy njaayum doole Ousmane Sonko le seul candidat en 2024 Guy Marius Sagna Macky Sall doo bokk Ousmane Sonko da ngay bokk Buzz Media TV ñoo ngi ñaan ci réew mi jàmm ak salaam